safo seetaan Sénégo TV sénégo point com te nag ñu ngi am suñu entretien exclusif ak Ibrahima Maba Diop di international sénégalais Ibrahima maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Seydina maa ngi lay nuyu yéen ñëpp di nuyu waa Sénégo ak seen plateforme bi yëpp maa ngi rafetlu invitation bi di nuyu ñëpp ñeen di seetaan ak euh, di leen déglu kan mooy Ibrahima Maba Diop ci tënk en France su Ibrahima Maba Diop Euh, tout d'abord Ibrahima Ba Diop c'est un jeune sénégalais un jeune africain man maa ngi juddoo Sénégal région de Saint-Louis benn village bu ñuy wax Ñungumbere c'est à 37 kilomètres de Saint-Louis à 14 kilomètres de Ross Béthio mooy suñu commune quoi département de Diama foofu laa juddoo màggee fa fooye fa jàngee fa alxuraan jàng école football ba ñëw fi ma ñëw tey nekk États-Unis quoi. enfance su Ibrahima Maba Diop ci fàttali. fan la jaar dafa demoon école coranique dafa demoon école française soo ci mënee résumé. waaw comme tout Sénégalais ñun ñëpp tey boo juddoo si famille boo yaroo xëy na alxuraan ngay njëkk jàng daal man village bi ma juddoo yaroo fa foofu laa njëkkee jàngee alxuraan ki ñu jàngal ñu ngi tuddoon oustaz Serigne Fall boobu xale yu ndaw lañu avant ñu dal école à lage de trois ans quatre ans ba ni ngay nekkee école même da ngay nekk CI ba yenn niveau yi sax da di. jàng alxuraan quoi noonu la demee man alxuraan laa jëkk jàng et par la suite euh, la dem école euh, élémentaire bu ñungu foofu laa jàngee CI ba CM2 après la am entrée dem Ross Béthio foofu lañ daan defee suñu euh, collège quoi après fa laa dem ba yàlla jàppale ma daal ma nekk fa jànge fa après par la suite dem naa dem naa Ndar nekkoon na foofu tuuti. quartier bu ñuy wax Daaru maa ngi di nuyu waale ba joué foofu foofu la yàlla def ma commencé waale petite catégorie bu Linguère quoi fa la joué cadet mais auparavant suñu village bi foofu suñu kër famille de football la équipe bu nekk foofu sama tonton bu naan Daour Aan génn na àdduna at bii passé yàlla na ko yàlla yërëm xale ko àjjana lu ñu mel si football moom moo tax moom moo doon président équipe bi su ma mag suñu famille ñun. on est cinq suñu taaw mooy Mbaye Diop moom moo doon coach équipe bi man maay suñu caatu kër xam nga kon gars yi fa lañ daan regroupé parfois suma mère moo leen daan toggal ak yëpp kon xam football bi dafa nekk suñu famille en quelque sorte nga juddu màgg tamit fekk gars di jouer ak yëpp daal noonu la demee ngay football ak suñu ay morom ñu nga xam ne ñooy fondoo xam nga rek comme tout jeune football si mbedd yeeg yooyu noonu ba jàng beeg yëpp bu ñu amee ay match après di jouer noonu suñu moroom ak école entre classe ak yooyu noonu interclasse yi yooyu c'était important pour ñun après yàlla jàppale ñu tamit ba ñu sori si jàng bi dem Ross Béthio tamit fay jouer ba gars yi xam ñu après muy continuer comme ça ba ñu dem Ndar par la suite la jóge Ndar dem Dakar joué naa douane en junior benn année la joué après foofu laa jógee ñëw New Jersey fa laa nekkoon quoi si Pennington c'était en 2016. Mm-hmm. après par la suite laa jógee. Pennington dem UCAN fële à Connecticut xam nga foofu c'était en 2018 après laa jóge foofu dem West Virginia quoi ba léegi ma nekk London fii nii à côté de Washington quoi. macha allah mu nekk parcours bu riche. Euh, hmm. ci diggante yi nga doon ceeñee entre state yi da nga continuer woon sa jàng wala école bi ñoo lay transféré wala club yi ñoo lay jënd di la jaay. voilà comme loolooy différence bi fii ak euh, Sénégal dafa xaw a tout tuuti léegi bu fekkoon. bi may sogaan di ñëw 2016 dama doon def sport étude loolu kese laa doon concentré wu xëy na ñoom mën naa ko si boole sax avant mooy ñëw amoon naa chance pour dem signer ji professionnel en France benn équipe bu ñu naan Dijon xëy na xam nañ ko mais boobu tamit man suñu famille ak ñun ñëpp xam nga dafa baax tey ñun fu ñu mën nekk dañu am kilifa am naa suma grand frère et tout ñu discuter si bon comme que tamit xawoon naa sori si jàng bi te bëggoon na sama objectif ma ne du ma bëgg di. di bàyyi sama jàng gi yëpp dem football et sànni lépp si àll bi comme sa quoi après nag laa ñëw ma choisir fi dem Pennington léegi danga daan jàng la ngoon bi ngeen di football ak yooyu noonu yi comme xam nga ni muy demee si état yu bëri NCA ak yooyu noonu noonu doon demee quoi mais la plupart tey da ngay nekk si benn équipe dañ lay gis xam ni yow mii sa talent romb na lii dañuy mujj transfert la fen parce que équipe de football bi moo lay bëgg comme Red Bull jaar naa foofu New York Red Bull seen académie ak yooyu noonu après joué tamit. Euh, quelques instants ay Nashville ak yooyu noonu xam nga day nekk fu nga xam ne football kase ngay def léegi da mujj sacrifier jàng bi wala nga koy def online yooyu noonu moom mooy chance bi fii léegi bu la équipe yi bëggee dañ lay jël mais du tee sa scholarship bi nga am sa école yaa ngi koy def da ngay continuer di jàng ak yooyu noonu mais online nga koy def mais ngay continuer club bi di jouer ak di football transfert bi noonu lay demee quoi en quelque mm-hmm. ndax bi nga jógee Sénégal ñëw fii da nga perte contact ak fi nga daan jouer wala ñi la entouré woon. non man. bi ma ñëwee fii parce que je me rappelle euh, ba première semaine yeeg mooy xawoon na metti parce que booy soogaam di ñëw temps yooyu xawoon na compliqué daal parce que booy jógee Sénégal xam nga nu muy demee day metti et tout mais mosuma perdre contact ak fi ma jóge woon chaque fois dañuy échangeante te yomb na à travers WhatsApp beeg yooyu noonu xam nga dañ doon déggante tout le temps lu ma nekk dañ koy xam mhm. image yi dañ koy am suñu entraînement dugg suñu site équipe ak yëpp dañuy gis tout après suñu amee temps wala tuuti break wala vacances damay dem foofu nekk ak ñoom parfois dañuy entraîner ñoom suñu saison bu jeexee ñoom jeexul damay dem vacances yi di entraîner ak ñoom wala di leen invité au village ñu jouer ensemble di nekk yooyu noonu quoi. ci yan circonstances ngay intégré équipe nationale dañ la woo dañ la. bon en équipe nationale je peux dire c'était en 2018 boobu maa ngi woon Pennington en New Jersey bon c'est par un de boobu ki moo fa nekkoon je me rappelle Youssouf euh, Youssouf Dabo moo doon ama après mu xamanteek euh, xëy na suñu ay grands yu nekk foofu ak euh, quelque agent yi doon travail en Europe ba yooyu ñu gis samay vidéo et tout après wax ma ko par le biais du directeur technique national Mayacine Mar après ñoom ñoo ma contacté ni ma o oh, coach bi daf la gis yooyu noonu intéressé aussi yow c' était un match qualification pour Coupe d' Afrique u ñoom ak Égypte la woon man leen wan loolu dina ma neex parce que tamit ñun ñëpp bi nga nekkee xale xam loolu moo doon sa rêve jouer équipe nationale porte maillot national yi bu ñu ma woowee ma préparé wu excité wu et tout mais yàlla def ba deux semaines avant ma am blessure ci genou xam ah nga garaawul woon noonu trop mais mënoon naa ak force dem ma ni non wóorul daal comme que équipe nationale te tamit am na lu ñuy xaar si yow bëgguma dem foofu di sooxaale ak moom léegi ma ni ko oh coach bi laa waxal directement Youssouf Dabo grand coach ku may nuyu bu baax di ko saluer tamit eh, fu mënti nekk ñaanal ko yàlla defal ko jàmm après ma wax ko ni ko man bëgg naa ñëw et tout xam naa ne yéen ngi dem Égypte c'est un grand match mais dama am un petit bobo mu comprendre ma ne ko bu fekkee yàlla def nañu qualifié next step bi xam nga mën naa ñëw xam nga parce que lii bëgg naa ko tamit sama rêve la tamit bëgguma ñëw foofu ak gaañ yooyu moom it mu comprendre mu ni ma ñoo ngi dem ni Égypte mais léegi bu ñu gagné on se qualifié suñu gagné wul nag xam naa. du nekk sa chance quoi ba beneen yoon après tamit c'était dur mais ma préféré toog fii faju bu baax ba tane yàlla def tamit ñoom ñu dem en Égypte ñu match ñu dem série ñu gagné après bi ñu qualifié ñu war a jouer dernier match euh, pour qualification bi contre Congo booboo doon match final pour nga qualifié quoi bi ñuy dem Congo la ma mu jox ni ma finalement c'est qualifié ñu envoyé ma convocation bi ma jógee fii dem joué naa match bi ñu def au Congo comme match retour ba Sénégal aussi. Mm-hmm. après ndax bi bi ngeen amee échange na da nga blessé genre yu mel noonu sa xel lan la doon xalaat après bi nga ko bi nga wooyee. Mhm. mu ne la suñu demee gagné mu doon sa sens suñu gañewul aussi. peut-être ah, boo amee sens lan nga réagiré. je me dis juste que ñun ay ay ndaw la ñu te tamit xëy na ni ñu yaree ay jullit la ñu quoi tey lu am tamit dina metti tout mais da koy sant yàlla tamit xool ci kanam parce que affaire yi moom chaque fois du demee à côté quoi xam nga léegi man bi ma ko waxee xaw na ma métti ma ni woon ah est-ce que du ma takk suma tànk dem parce que science bi gaw ma naa ko amaat ah, bu fekkoon contexte yëpp la yaa ngi Europe ak yooyu waaw mais nga ne États-Unis xam nga bëriwul looy gis joueur bu jóge fii ñëw équipe nationale nga mos na am loolu c'est très rare gis ko xam nga ñëpp tamit kontaan sama famille yëpp ma ni est-ce que lii tamit war naa mën a bàyyi ko noonu mu tombé en l'air après ma ni ah mais je préfère suma may dem ma nekk à 100 pour cent même bu fekkee xam nga yombul quoi mais si laay mën wane suma bopp tamit mën leen kontaan loo ñoom ñëpp moo tax xama coach bi tamit wax ma ko conseiller ma si abit xama ànd seeg sama famille ak ñi ma war a àndal ñëpp ñu ñaanal ma si tamit ma remercier benn médecin bu nekkoon fi Princeton moom il est trop moom ma jàppale ba ma ñëwaat presque en moins de trois semaines après yàlla def ñu qualifié si la dem j'ai suñu premier match après qualification la woon quoi amoon na match amical avant match boobu ma ñëw bokkoon na si jour yi ma gën neex sama àdduna sama famille ñëpp déplacé wu ñëw stade Léopold Sédar Senghor xam nga seetaan si ma moon ak sumay moroom ñu def délégation suma waa village tamit ñëw andi seen bandro mhm. ñëpp ñëw yàlla def sama premier match ma dugg remplaçant même pas deux minutes dugal bi après yaakaar naa yooyu bokk na si lu ma gën téye équipe nationale ba bi ñuy préparé Coupe d'Afrique bi et mhm. jour bi nga solee maillot équipe nationale lan nga yëg waaw xam ne yow wax ngeen lépp mais tey sol nga mayo bi war a jouer. waaw xam rek comme tout footballeur moom <laughs> loolu yaakaar naa boo ko amee day mel ni rêve bu réaliser entre temps tuuti pour yow parce que yombul quoi xawoon na nekk tout tuuti pression pour man parce que dafa diis mais fierté laa doon am excité wu pour ñëw xam nga sol sa maillot dëkk ñu way national sa kanam mosuma ko am fi ma dëkk zone bi ma dëkk kenn mosu ko fa def. xëy na ak village bi ak région de Saint-Louis bi am na si quelque mais melul comme Dakar ak dëkk yi ma ñëw bon. spécialoon na trop amoon naa toute pression mais bi ma ñëwee ba ñu commencé def hymne ma xool suma famille si kaw gis samay xarit yi ma daan fowandoo ñëpp ma ni laa tey moom xam nga tamit ba mënul woon football wala yàlla may la dara doo ko def kon bàyyi ma teg pression bi à côté def li ma mën. jouer sumay qualité xam nga ça s'est bien passé et alhamdulilah daal. bi nga ñëwee intégré équipe U20 bi naka ngeen dundee ak sa coéquipier yi da ngeen doon échanger da ngeen doon dund xamante bi mu doon première fois. Mm. ndax amoon nga ndax intégré wu nga 100 pour cent. waaw au début xawoon na xawoon na jafe tuuti quoi parce que bëriwul woon li ñu daan am xëy na gars yi jógee États-Unis daan am ñu jógee France club yi yooyu noonu mais ma ñëwee ñu may tooñ naan ma l'américain ak noonu xamante am na ñu nga xam miinuma leen trop mais daan gis parce que sumay frères yu mel ni ay Ibrahima Ndiaye nekkoon nañu foofu avant U20 U23 ñoom daan nañu tasanteeg ay gars yu mel ni ay Ousseynou Niang et autres léegi bi ma demee dañ doon tooñante su ma ñëwee ñu naan ma oh l' di ma làkk anglais man tamit ma dem wàccee sama bopp manuma leen nii yàlla may na la chance nga voyager parce que la plupart ñoom ñi ngi woon Sénégal quoi après ñi kaf di foo mhm. intégration bi xawoon na jël temps tuuti parce que tamit sa méthode de vie ak a différents tours si ni ngay doxaleeg yëpp mais tamit Sénégal lañ juddoo ñun ñëpp te bañ fa jugee taxul yàgg trop kon dañ daan kafre def suñuy groupe fecc play musique après bu football jotee ku ne def li nga mën après ñu xam rek loolu la intégration bi demee woon quoi. Mhm. bi ngeen pare ci compétition 2019 bi fan ngeen next step bi lan la woon bi ngeen pare foofu. waaw waaw boobu xëy na même si biir compétition bi sax xam maa ngi nuyuwaale suma xarit yëpp ñun ñëpp ñoo bokk ndawoon. xëy na bi ba préparation yi yëpp ñu mel ni ki ñoom Bamba Dieng ay Formose Mendy John Lopy ñoom Moussa Ndiaye et autres. Ah, da ngeen a joindre ensemble en 2019. waaw ñun ñoo bokkoon benn groupe ñoom Moussa ay Lopy bëri bokkoon benn groupe quoi léegi bi ñu demee ba jouer ba gagné Congo la ñu jugee fii ku nekk ñëwaat man ma ñëwaat États-Unis xëy na boobu sax amoon naa chance am na équipe européen yi ma doon contacter xam yu mel ni ay Benfica Schalke ba ñu waroon ko finaliser mais par la suite xam rek dafa xaw doy waar boo nekkee am loo boole ñi nekk fii dañuy bëgg tamit ngay ñëw di retourner après tamit xam nga affaire yi tamit mën na bañ demee ni ñu ko bëggee woon ak yooyu noonu quoi noonu la demee après ñu ñëw ñu am benn stage en Arabie Saoudite man ma jógee fii direct fekk leen Sénégal par la suite lañ dem Arabie Saoudite def deux matchs amicaux avant Coupe d'Afrique bi quoi mais ñun ñëpp ñoo bokkoon ñoo bokkoon même génération tey am na ñu si yàlla jàppale ñu ngi leen di dégg si équipe yu mag am ñu nga xam ne tamit ñu ngi góorgóorlu ay. Amadou Sagna Youssouf Badi ñoom ñëpp dañuy tooñante chaque di dañuy am suñu groupe WhatsApp toog Kaffrine ñun ñëpp ba Formose ak ñoom musa bi ñu demee coupe du monde bi passé ay Bamba xam nga da ngay. Mhm. da ngay fier quoi gis ñu nga xam ne yenn bokkoon benn génération di ñaan yàlla tamit xëy na yàlla àggale ñu foofu ba benn jour tamit ñun ñëpp ñu si mën di. Mhm. Euh, àgg foofu suñu famille ak Sénégal bi yëpp di si mën wane li ñu mën pour euh, suñu dëkk quoi loolu daal bëgg nañ ko mais noonu la demee daal te après tamit bi ñu demee coupe du monde ba ñëw mhm. affaire yi ah, Euh, nu mu tudd préparation Coupe d'Afrique beeg yooyu xëy na affaire yi gën nañu jàppale daal. Hmm. bi ñu ñëwee ay bunt yu bëri ubbeeku na équipe yi gën nañ la reconnaître am naa si ay contacts yu bëri te loolu rek la bépp jeune di ñaan daal ñaan yàlla yu si topp ak yëpp gën a leer te. ok ñu delluwaat ci ginnaaw tuuti. Mhm. bi nga nekkee Amérique jógee euh, US dem Sénégal seen tactique de jeu yi ngeen di joué ak Sénégal yi nga fa fekk ndax amoon na différence un peu du ngeen réeroo. wala système bi ngeen joué benn amul woon benn jafe-jafe entre yéen ak ñoom. Ah, xawoon na am tuuti tuuti différence quoi parce que boo joue fii genre moom mooy ëpp c' est plus physique quoi xam nga c' plus physique mais fee boo demee tamit tey àdduna bi ñëpp yam xëy na lii Guardiola di coach yi wala coach yi gën a mag boo demee Sénégal da ngay gis gars yi moom la ñuy def parce que léegi ak moyens yi ñu am internet beeg tout da ngay gis tey li Manchester City entraîné mën nga ko def kon. amul woon grande différence parce que coach yi foofu tamit xarañ nañu trop te ils ont fait un très grand boulot bi ma demee tamit lépp yomb na te loolooy chance su boo nekkee jeune nga voyager wala yooyu tey doo am problème pour euh, adapter aussi lu bëri quoi loolu moom c'était pas un grand challenge pour moi quoi franchement parler. instant yi ñoom ñoo ngi entraîner yow yaa ngi entraîner est-ce que di ngeen di ngeen nekkaat même pied d'égalité ci côté entraînement coach bi wala da ngay jot ay nouvelles coach bi. di lay wax ci lan ngay travailler wala. bon je me dis que xëy na parfois ñun li ñuy def mooy xaw ëpp sax ñoom li ñuy li ñuy def quoi mais coach yi dañuy comprendre tey boo ñëwee yow jour bu ne am na lu ñu koy gérer quoi bu fekkoon yéen ñëpp yéen yem niveau mais tey yow mi yàlla dimbali ba nga génn wala nekk si équipe yi nga xam ni sont mieux équipés et autres yemul ak euh, ñi nga xam ne ñi ngi joué biir Sénégal parce que tamit foofu lañ dëkk et tout mais xam nañ ne moyens yi demeewul noonu quoi ñoom du ñu am yenn kii kon. am na loo leen di ëppalee tuuti mais boo demee tamit xëy na dinañ am nu ñu leen gérer travail ak yéen ba yéen ñëpp ngeen ne nekk au même pied d'égalité pour man être performant daal ñoom loolu la ñuy gën concentré wu ku mm-hmm. nekk. li mm-hmm. lay gën a tax performant ñu focaliser wu si après yamale ñëpp quoi surtout. Mm-hmm. seen agenda bi fan la toll ak event bi. ah oui yi ngeen ne. bon ñun depuis xëy na sélection bi ñu amoon 2019 boobu ba léegi. parce que kii day gaaw quoi léegi dangay ngay dépassé u ngi dugg si U23 yi am na ñu ay compétition doon préparé ñu ngi wan a contact ak staff bi mais xam nga presque ay deux matchs ngay am benn match si année bi am na ñu ñun siy dégg quoi mais bon ñu ngi xaar booba tey xëy na bu ñu amaatee beneen sélection wala am na ñu ñuy préparé ñu ngi déglu gars yi daal ñi ngi en contact tout le temps mais la plupart xëy na U23 bi moo siy nekk mooy olympique bi après équipe A bi quoi la plupart du temps. Mm-hmm. leçon bi romb tuuti ok mhm. euh, seen agenda wax nañ ci agenda bi léegi euh, dañuy avancer donc ci euh, préparation coupe d'Afrique bi alma chute ko fi deuxième extrait Sénégal doon champion d'Afrique mhm. bu doon coup de tonnerre am na ñu ko xaar mais am na ñoo xam ne mënuñu ko gëm ba tey. Mm-hmm. jour bi nga gisee Sadio Mané door penalty Sénégal mu leer que ne tey champion d'Afrique la ban yëg-yëg nga am. bon xëy na su may wax lu nga xam ni lu positif la trop pour man si deux mille vingt deux bi xëy na loolu. looloo gën tax ma koy wax daal parce que bokk na jour bi nga xam ni moo gën a neex si journée yi ma am yëpp si 2022 bi parce que lu ma masul dal si football dafa dugal rek après su ma rangoo ñu commencé tuuru si commencé à pleurer ma ne man xaw ma lii la moo tax mais mm. dafa ne lu nga xam da nga daan nekk xale bu ndaw dégg sa ay maam sa ay tonton di si wax naan oo oh, ñun kat ma suñu jël coupe d'Afrique yooyu noonu yow yàlla def génération bi nga nekk xam nga am ñu nga xam ne yéen bokkoon benn équipe nga dem ba gis leen ñu nekk champion d'Afrique mm. tey loolu am si sa génération loolu da si da nga siy kontaan daal après tamit respect la woon parce que ñun dañ daan voyager fi ñuy ñëw suñu équipe am na ay Ghanéens ay Maliens ay da ngay tuuti quoi oh, mm. bu mag quoi te après doo am excuse léegi bi ñuy toog ñun ñëpp ñoo doon seetaanandoo ah, y avait des amis marocains même suñu imam bi ñu jiite fële moom égyptien la quoi mu ñëw. Mm-hmm. toog wax ma quoi après ñun ñëpp ñu ñëw suma fi ñu nekk ñu toog seetaan après di Sadio Mané di dóor man dama génn dem. Mhm. dama leen dégg rek ma xam ne dugal na mais joie la bu nga xam ni. Mhm. amul loo ko mën jëndee quoi je me dis que football rek moo mën loolu sport rek ko mën te gis nañu tamit. Mhm. li nit ñi doon mel Sénégal et soulagement la daal enfin on est champion et ñun ñëpp loolu lañ doon ñaan xëy na yeneen ak yeneen topp si incha allah. ñu teg ci après nan ngeen ban message ngeen am ak sa coéquipier yi nga doon jouer comme ñoom Bamba Dieng ñi nga nan ngeen seen dialogue après. woo nga leen félicité leen xam nga. avant sax def ngeen ay prières. di mm. ñaan di leen encouragé. Mm, ndax jot jotante ngeen téléphone champion su ma sañoon ngeen def nii temps temps temps waaw. ñun dañ doon euh, xëy na surtout tooñante juste avant bi ñuy joué demi finale def nañu genre live dañuy tooñante Instagram tout le temps xëy man ak moom la woon yaakaar naa ak Formose ñu tooñante ma ne ko oh man moom du ma la wax dara xam naa ni am nga sa chance yaa ngi si tempo bu baax mais bu ñu demee série moom. penalty na nga jël nga dóor quoi di ko tooñ Formose naa ma yow da dof kii moo gën a jeune si équipe bi ma ne ko moom xam nañ ko parce ñoo daan joué ndoo te xam nañu qualité yi mu am yooyu daal ñu doon tooñante ma naan ah, affaire yi moom amul pression quoi seen équipe baax am nañu meilleur joueur d' Afrique Sadio Mané mi ngi foofu meilleur gardien Koulibaly et tout donc yow lenn rek laa lay wax tey daañu joué ñi ngi préparé fi nga am na pression yëpp mais bu ñu amee série moom wala penalty demal nga jël bal bi parce que xam nañu daal dañuy football te gis nañu équipe bi. lu doon lakkin bi moo doon chaque fois danañu rat ay penalty ak yooyu bien vrai que jeune nga mais pourquoi pas nga avancé dem jël ko loolu dañ doon tooñante quoi ma koy wax nag naan que non bu amee rek demal gëmal rek nga dem jël yooyu noonu. Mm-hmm. waxtaan si même après match bi ñun ñëpp ñu toog def live kafre wala appel vidéo tooñante ba match bi mujj bi doon joué contre Bénin da mujj déplacé man ak sumay xarit dem seetaan leen mooy bi woon euh, mm-hmm. stade Me Abdoulaye Wade boobu laa doon am leen live. ma dem foofu ñoom ñëpp après ñu kaf ree tooñante après mooy loolu quoi. Mm-hmm. jamono bi yaa ngi ci contrat. pour mm-hmm. fii ci États-Unis ci benn club pour jouer. ok man maa ngi fi en Loudoun lañ koy wax quoi mi ngi nekk à Washington genre seen équipe yi mooy bi nekk euh, deuxième division mais ñoom parfois xam nga rek da ngay commencer di nga am yenn opportunité mais fii gars yi duñu bëgg di la libérer trop mais comme li ñuy wax rek xëy na ku nekk sa temps. bu dara jotee pour mu pour nga romb ko rek di nga ko romb quoi loolu loolu la teg doon suñu sago ñun ñëpp tey di nga nekk fu nga xam ne sa yeneen moroom yi si nga leen di dégg peut-être moo ëpp view yi ak yooyu noonu xam nga baax na trop et tout xam nga nga am yeneen yu nga xam ni moo la gën a te am nañ objectif yu nga xam ni bëgg nañu romb fii parce que c'est bien tout mais c'est pas médiatisé te ñun xam nañ ko bëgg nañ dem fu gën a huppee fu gën a kawee tamit euh, pour ñun ñëpp quoi incha allah mm-hmm. ci loolu euh, coupe du monde bi ñoo ko gisandoo Sénégal dem na mujjoon na qualifié dem ci coupe du monde Qatar 2022. Mm. mu amoon ay euh, ay ay ay ay jafe-jafe début bi toog Sadio Mané dafa forfait mënul dem ñu ñëwaat bi nga yëgee message boobu yow tamit en tant que joueur euh, lan la la def lan nga ci. Eh, man peut-être comme Sénégal yëpp ni mu mel si ñoom man équipe bi ñu suñu équipe genre coach bi anglais la xam nationalité yëpp fi ne am nay argentin ay brésilien espagnol dañ doon tooñante ñoom ñëpp ku ne wax man leen o oh, man moom suma minimum mooy Sénégal demi-finale ku ne bind sa kii quoi dañuy def genre ki def ko si tableau bi mhm. xam ba trois jours avant ñu ni Sadio Mané blessé man leen laa man dindi naa suma xam rek parce que waaw c'est compliqué dafa mel tey nga ni Messi mënul dem pour Argentine xam nga ak lu équipe bi baax baax gëm nañu ñeneen ñi et tout mais c'est pas la même chose quoi dafa am luy manqué j'avais confiance nag nag ni dinañu dem dinañu génn premier tour bi mais man foofu la sama level yemoon quoi dama ne woon bu ñu génnee premier tour foofu la ñuy yem après bon je me suis dit que ils se sont bien comportés dañ taseen nag équipe bu nga xam ni genre du benn quoi niveau yi du ñu benn ay Angleterre ay France boo gisee da nga xam ni niveau de jeu yi ak ñun xaw na am gap tuuti ba tey quoi peut-être nag on peut se dire bu joueur yëpp complet woon t'avais un Sadio Mané autre dina changer daal mais c'est bien comme que Sénégal tamit xaw na constance ci niveau boobu di dem coupe du monde deuxième fois d'affilée te ak groupe bi ñu am xëy na c'est loin d'être fini daal mën nañu gën a avancer chaque année di dem step by step yàlla àggale ñu fu ñu fu ñu mësul xalaat daal incha allah. en tant que footballeur. Mhm. boo toogee sa téléphone di connecté wu Instagram wala TikTok gis koo xam ne amateur football la. di corriger ay coach yow lan lay def yow mi nga xam ne professionnel yaa ngi xam joueurs yi lan la ñuy dund. Mm-hmm. loolu bu ko gisee lan lay def yow. waaw loolu dafa bëri dafa bëri dafa bëri trop wàccee du leen voilà. dafa bëri trop suñu societé mais tey xëy na lu bëri lu ñu xamul mooy football nekkatul question talent kese mental bi da si am solo. Mm-hmm. tey si pas bien mentalement xëy na. li ngay give ab dina bëri daal parce que dangay toog sa téléphone ngay dund tout le temps nga lire kenn ku toog critiquer coach yi wala joueur bi xam nga mhm. boo amul mental tuuti rek di nga di nga découragé daal te loolu boo ko gisee tey képp ku mënti nekk daf lay daf lay wàññi daal ça te fait du mal parce que jeune nga yaa ngi am loo bëgg nga gis ku toog këram taal teleem wala teg attaayam di la critiquer xam nga da naan il ne comprend pas mhm. te ñun loolu daf si bëri sport boo mënti nekk nag sport yëpp da gis ku toog nga xam ni genre xamul li ngay dund te yàlla xam na parfois da ngay dund lu nga xam ni yow yàlla kase yéen na ko xam te nekkul lu yomb mais ñoom dañu jàpp ni xëy na kii bu voyagé wala àgg benn niveau bi rek am alhamdulilah mais après tout dangay fàtte ni que muy yow Ibrahima naa ku Mbappé ku man doon nit kase nga xam nga après dafa am beneen vie am lu nga xam ni sa sa xel loolu la may moo tax nit ñi nañuy bàyyi. xel bu baax a baax li ñuy wax surtout li ngay bind parce que fu nekk la mën dem quoi. Mhm. surtout ça c'est important. fan nga perte espoir ci Qatar 2022 bi Sénégal ak euh, ñi bokkaloon poule bi mu demee ba génn fan nga xamee ne ah ñun daal tey moom te yàlla nañu teeluwaat rek ban match. bon man euh, je me dis que premier match bi man j'étais trop ambitieux mais je me disais que moom mooy suñu test pour ñu xam fa la ñu mën yem quoi xamoon nañ daañu sori mais. boo joué ak Hollande di nga xam fan nga mën a yem après nag joué nañu on avait tenu le match jusqu'à peut-être soixante quinze soixante dix minutes mais après ngay xam ne ñun kat oh on a une équipe suñu équipe baax na mais li ma gis mooy daañu mën gérer ak équipe yu nga xam ni sont moyens tu vois équipe bu nu mënoon tasanteel ay Uruguay yi genre yooyu noonu ay Colombie Équateur xam nga genre équipe yooyu noonu quoi foo tasee ak ñoom di nga si génn mais. boo tasee équipe yu mel ni France ay Argentine wala Hollande mhm. xam nga di nga mën gérer match bi ba soixante-dixième mais mhm. loolu kese doyul niveau bi ñu nekk oo doon ah Coupe d'Afrique wala yooyu c'est bon mais gis nañ li am fii da ngay gérer équipe ba quatre-vingt-dixième minute quatre-vingt-onzième minute dañ lay dañ lay rey te ñun loolu laa jàng si premier match bi ma ne oh ñun kat dinañ gérer match ba soixante-quinzième dix mais duñ ko àggale quoi kon nag équipe yi foofu lañ ñuy foofu lañ ñuy sonalee moo tax bi ma gisee loolu laa nii nañ ñaan yàlla tasante équipe yi nga xam ni sont moyens mais su suñu amee équipe bu assez forte ça va pas aller après laa xawoon nag perdre espoir ma ni oh je me disais juste que yàlla nañu am mm-hmm. wala ñu moytu équipe yu mel ne Angleterre France mais bi ma giseen dem Angleterre laa ni oh mm-hmm. je pense pas que ça va passer cette fois xëy na ñu bëri mere woon nañ ma si sax ak yooyu mais après comprendre nañu quoi parce que niveau yi du du benn quoi te coupe comme li ma wax auparavant rek du soixante-dix minutes wala quatre-vingt-onze da ngay dem ba quatre-vingt-seizième gis nga match yi am ay France Argentine mm-hmm. da ngay contrôler match ba mu des dix minutes cinq minutes après tu vois mm-hmm. loolu mooy différence bi entre coupe du monde coupe d'Afrique ak yeneen niveau yi quoi surtout ça mm-hmm. niveau bi la sama importance voilà xaaral gars kon après coupe du monde bi lan mooy ay projet Ibrahima ci lan la nekk ndax day liggéey mu ngi ci jàng bi ba tey daf ko boole football bi man mooy say projet yoo xam ne yow ci nga nekk ak loo xam ne a bëgg na ko def. waaw xëy na côté boobu moom dañ siy sant yàlla alhamdulilah ba jàng bi par nañ yëpp li si doon def tey am naa sumay diplôme parce que jëf naa quatre ans d' étude tout am naa sumay diplôme et tout ba commencé woon na yu bëri si côté boobu xam nga léegi moom. jeexal naa lépp si côté jàngi bi alhamdulilah c'était pas facile nag parce que da nga doon di entraîner parfois mais xëy na ak bi Covid bi amee yooyu yu bëri nañ ko doon def en ligne xam nga metti woon na nag mais ma profité rek téye samay diplôme après nag man concentré. léegi diplôme la. am na def naa ba am euh, communication ak euh, euh, business administration commencé woon naa ko aussi te yàlla dimbali ba am naa suma diplôme yëpp. Mhm. sant yàlla parce que yombul quoi surtout jàng bi fii c'est trop trop trop difficile yamul ak mhm. Sénégal xëy na te yooyu boo ko amee dina la ubbil. Mhm. bunt yu bëri te boo gisoon ma xawoon ci sonn xëy na pour tamit. bon exemple suma rakk yi la xëy na football neex na ay tout mais une carrière du du romb dix ans wala quinze ans après lan ngay def ci sa vie. parce que ñun fi ñu juddoo yaroo fa dañ fa gis ñu ay grands frères yi nga xam ne exemple la. nekkoon professionnel nga leen seetaan télé mais léegi pare nañu. dañu di si koñ yi ñu toog yore seen kaasu café duñ def dara après moo tax xama boo amee yenn choix yi tamit baax na nga concentré aussi sa jàng tuuti dina la dimbali à l' avenir ba boo paree di nga def reconstruction bu baax amee sa yëfu bopp xëy na loolu tamit. li ñuy gën a concentré mooy jàppale ñu rak man moom loolu dama ko mos a bëgg ba fi ñu àgg tey ñoom yegg fa ba village bi ñu nekkoon ça fait plus de trois ans defar naa fa benn genre académie bu ñu mettre en place pour xale yu ndaw yi. Mhm. xam nga dafa am sumay copains yu jóge fii des américains yu ñëw foofu chaque fois di leen ay matériel parfois tamit ñu xool booy bu ñu gisee ñu nga xam ni. Mhm. ils sont assez talentueux ñu ngi góorgóorlu si jàng bi surtout après ñoom bu ñu amee chance ku si sa wërsëg nekk ñu mhm. indi la xool la. Mhm. si tu réussis dans les études c'est bon si tu réussis dans le sport c'est bon mais après tout loolu daal xëy na lu ma gën a miser la ba ku ne am sa opportunité après nag personnellement maa ngi continuer sama carrière ñaan yàlla xëy na nekk Europe temps yi si fan yu néew nekk si équipe yi gën a mag ba mhm. un jour dem jouer équipe nationale mhm. équipe A bi après affaire yi gën a yokk daal mais xëy na côté opportunité loolu surtout jàppale suñu ay rakk jeunes sénégalais yi ñëpp nag ku si sa chance nekk nga góorgóorlu si ba ñun fi ñu jaar nga jaar fa wala am lu ko raw daal incha allah. da ngay préféré say vacances ci zone occidentaux yi wala biir Sénégal dafa mel ne biir Sénégal nga gën a focus ci say vacances. non man chaque vacance mosuma ko sax passé fii du jeexee damay dem Saint-Louis village laay dem toog fa man loolu dama koy dama koy namm daal xëy na ñuy joué la parfois sax même sama copain dañuy dem vacances ñoom ñu dem Mbour wala Dakar toog man. du ma nekk à l'aise quoi damay dem village toog su ma demee invité suñu booy yi nekkoon Linguère ñu ñëw foofu chaque jour. Mhm. dañuy jouer match wala booy village fa la ñuy toog demee suñu gaal la ñuy toog fa ba guddi toog suñu ay plat ay spaghetti café. Mhm. organiser ay matchs amicaux avec des amis. Mhm. noonu daal la ñuy dundee vacances yi daal après. la plupart du temps mais je préfère pas trop di dem ay Europe wala yooyu noonu non man moom je suis pas trop dans ça ban message ngay am pour la communauté sénégalaise ak loo xam ne bëgg nga ko partager ak sénégalais yi ci affaire expression sociale wala genre yu mel waaw surtout xëy na Sénégal moom lu ma si njëkk wax mooy leen jaale ñoom ñëpp parce que dégg nañu accident bi am fan yu passé metti na trop foo mënti nekk si àdduna. metti na trop di leen ñi nga xam ne jóge nañ fi yàlla xaar leen àjjana ak ñi si gaañu yàlla yëkkati leen quoi loolu c'est important. beneen bi mooy xëy na message bu ñu leen di lancer rek mooy en tant que doomu Sénégal. xëy na tey dañuy bëgg foo mënti nekk ku dégg sénégalais fier si sénégalais bi nga nekk quoi xëy na yu bëri dañ koy dégg à les médias ñuy gis yenn comportement yeeg yooyu buñ si mënee dimbali seen bopp dimbali si képp kuy sénégalais ñu gën si góor góorlu parce que communication c'est important te dama gis ni Sénégal dëkk bu xaw am problème si loolu daal bu ñu waxee rek parfois da ngay taf sa gémmiñ wala nga ni mm-hmm. da ngay sam gàcce nekk sénégalais xam nga mm-hmm. yu bëri dañ koy gis mm-hmm. na li gën a am njëriñ mooy comportement bi ak discipline bi nañ si góorgóorlu mën daal ñett yooyu xam naa ne su ma amoon lenn lu nga xam ni peut-être du reproche sax mais xam nga di ko séddoog ñoom loolu la daal parce que fi ñu nekk c'est important nga gis ni communication bi comportement bi ak discipline bi c'est trop trop important parce que gëm naa ni boo amee ñett yooyu rek lu lu bëri si sa vie du metti quoi tey xëy na succès yi mën na bañ nekk foofu mais di nga am jàmm ak salaam xam lu ngeen tamit bokkoo ko parce que ñun ñëpp tamit ay jullit lañu ay africain lañu tey kenn mënul jaay kenn dara quoi xam fu ñu mënti nekk si àdduna ay sénégalais la ñuy mos a nekk tey ni ñu gisantee kafre xam nga mhm. sekk jàmm ak salaam noonu la ñuy ñaanee ba keneen ak keneen xam nga màgg def noonu gis exemple bu baax bi surtout loolu daal laa leen di ñaan ku ne xool sa bopp daal jéem ne la bon exemple après qu'on avance sur ça et yàlla baax na xëy na on sera un meilleur et xewal yu bëri topp si incha allah. Mhm. amul lu ma la laajul nga bëggoon ko partager loo bëggoon. bon je pense que waxtaan nañ si lépp xëy na gën a lu invitation bi ak euh, li ñu fi jot wax yëpp di profité rek di nuyu ñi nga xam ni xàmmee nañ ma à travers cette interview loolu bëgg naa ko souligner di nuyu sama waa famille nuyu suma yaay bu baax a baax di ko ñaanal di ñaanal suma pap fi mu nekk gënal ko fi mu jóge suma grand frère. Mbaye Diop sonn na si man trop xam nga lépp presque moom moo koy def euh, sonn si ñun si sport ak yëpp muy moom xam nga Vieux Diop Khady Ousseynou Daouda ñoom ñëpp benn famille lañu sama cousin yi nekk fii ñoom Vieux Mansour ak la famille daal xam nga damay am chance bi pour ñoom ñëpp ku ma si gis wala képp kuy sénégalais nga gis ma si sama ancien coach yi nekkoon foofu suñu joueurs yi ñu daan football ndool suñu moroom yi xam nga ñu daan bokkal école et daal di leen nuyu di leen ñaanal jàmm di leen. bégge daal bu baax a baax te di la sant bu baax a baax ak euh, képp kuy Sénégal ak képp ku suivre plateforme bi daal jaayef ci fàttali interview bi ñoo ngi ko programmé depuis le vingt cinq juillet deux mille vingt et un. <laughs> <laughs> Ah, gis nga papa mën trois ans mënuñu fexe ko gisee. <laughs> parce que maa ngi doon dem Dubaay ñu dajee Institut Pasteur. def test Covid je me rappelle jour boobu vraiment. voilà boobu aussi nga doon wut test Covid. pour dellu siwaat. après xamante vraiment kontaan naa. léegi rek maa ngi koy wax suma xarit bi ma àndal naan ko tu vois. kii ñi ngi xamante boobu maa ngi doon préparé pour ñëw te boobu sélection laa ñëwoon. di def test Covid pour retourner. Mm-hmm. ñu gisante xam nga mooy li ñuy wax rek àdduna moom. Mm-hmm. genre nit bi bu la wanee lu nga xam ne moo rafet rek xëy na di nga xam fu muy commencé quoi mais doo xam fu muy yem ñuy nekk en contact ba après ngeen ma oo oh, man journaliste la j'aimerais lii ma la ah bon man. si sport laa yëngatu te béy na boobu xamuñu ko. Mhm, ñu déggante nga ne ma da dem Dubaï mais peut-être la wax yàlla baax na heure bu ko yàlla tuddee rek. xam mhm, ñëwoon nga foofu ñu waroon tase suñu terrain fi ñuy kiiweeg yëpp xam nga on s'est mhm. mais xëy na tey la ko yàlla bëggoon te. moo gën daal xëy na yeneen dina si topp incha allah ba nga mën déplacé wu fekk ñu suñu lieu d' entraînement et tout. ñu bokkoo lépp daal incha allah. merci beaucoup Ibrahima. <laughs> ok ñoo fa nekkoon Seydina Aliou Ndiaye New York